guddi gu nekk fanweeri yoon ak ñett nga naan lem bi incha allah li nga bëgg yàlla dina la ko defal beneen bi su fekkente ne ni dafa tollu diggante te bëgg yàlla may ko boppam bu dee jigéen mm, te do ci am benn fitna euh, yi mucc du ko ci dal lan la war a def ñu jël ko ci ligne bi te ñëw ci loolu salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu sëñ bi ñu ngi lay ziara ah, ziara alhamdulilah. jàmm rek maa ngi doon laaj dafa am benn bu ma géntoon ma bëggoon ko laaj. Mhm. temps maa ngi jéem a dugg waaye mënu ma. Mhm. dama génn mel na ku may dàq. Mhm. dafa ci kaw mbaar lu mel na mbaar. après mu mel na gaalu annabi Nuux moo nekk ci suuf si ndox. léegi nag ñun ñëpp ñu yéeg ci. lu ngeen yéeg. ci gaal bi ci gaal bi. Ah. gaalu annabi Nuux bi. waaw. ñu yëg si dem ba teer. Mhm. an annabi Ibrahima yëkkati benn euh, billet dix mille. Mhm. ak benn kurus moom. Mhm. léegi nag mënuma dàll yi moom fekk mu ngi sol ay dàll yu ferax yu xaw a màggee tuuti mënuma dàll dafa fekk ni yi dàll rek laa yor bu dul woon loolu dinaa la ko may. mu jox la kurus ak lan. ak ñaari junne. mu ne ma dàll yi nag dafa fekk dàll yooyu rek sol bu dul woon loolu dina ma may dàll. Mhm. waaw su loolu gën dama bëggoon xam ci loolu tamit nii. shukran wa ala xaal incha allah jërëjëf ci ñëw léegi incha allah waaye balaa ñëw ci ñëw ñëw ci ki nga xam ne ki moo ñaanoon ñu leeralal ko soxna su bëggee mucc ak jàmm ci li ko yàlla teg. te du am benn tolof tolof du am benn jafe-jafe du am benn xat-xat ci wàllu ëmb su tolloo ci weeram dañuy sopp fan yi mujj yi nga xam ni moom la dese ci boppam borom këram saa ne na jël loxoom di ko teg ci ëmb bi muy jàng aaya bi ñuy wax ni muy bismillahi arrahmani arrahim allahu yaalam ma taxmilu kullu unsa wa ma taxidu larxam wa ma tasdaad wa kullu shay'in indahu bi miqdaar mu teg ko def ci ñaare côté ëmb bi allahu yaalam ma taxmilu kullu unsa wa ma taxidu larxam wa ma tasdaad wa kullu shay'in indahu bi lu mu néew néew néew mu jàngal ko ko fanweeri yoon ak ñett ci ëmb bi eh, yàlla ci mbaxam dina ko may boppam ci jàmm ak salaam te du ci am benn tolof tolof ñi ñëw ci borom gént bi woote woon léegi kii dafa gis nee na ci gént lu mel ni nekk ci lu mel ni mbaar waaye dafa mel ni dañ fa wàcc duggaat ci gaal nee ci loolu ci gaal googu ci la gisee annabi ibrahim nabiyuna ibrahim nee na fa ataahu shay'an mu jox ko lu mel ni kurus ak ñaari junni waaye ne ko nag ay dàll yi laa fi dese sul woon lii rek laa fi yor ci dàll dinaa la ko jox رؤية الأنبياء في الحلم والصالحين والأولياء والشهداء وما إلى ذلك رؤية نبي في الحلم خير ونعمة وإجابة من كل دعوة gis ab yonent ci gént yiw bu bari la xéewal la moo gis saalix ñooyam mooy gis moo gis koo xam ne kii waliyun min awliyaa illahi alkubra wali bu mag yiw la aaju gu faju la lépp nga ci biir wa xataa bu la fekkoon ci ay xat-xat wala tolof-tolof wala jafe-jafe jàppal ni sa yatagayaru dalika xayran wa nicma inda hada rajul loolu dafay soppaliku nekk yiw bari ci moom mooy gis yenent mu jox la dara allahu alam moo xam dàll la moo xam alal la moo xam lu mu la mënti doon gis ko rek xayrun wa niamatun gis ko rek yiw la euh, muy lu jar a bàyyi xel euh, keneen ki ci topp euh, kii nee na dafa gént gént ku ko jaaxal nee na dafa gént di wazifa di ñaan benn ñaan boromam nee ci biir ñaan gi nag dafa mel ni bi mu ñaaree ci pa bu loolu weesu géntaat na ci genan wàll yor gerte allahu alam xamul ndax da ko yey wala yey na ko wala xolli na ko wala xolli ko mu jaaxal ko lool muy laaj ma bayaanu zalik nit ki bu defee wazifa ba pare di ñaan boromam xataa bu ci yemoon rek yiw la ndax duwaaw silaaxul mu'min ñaan mooy ngànnaay jullit su la yàlla ma ne may ci baax ci mbaaxam nga tëdd guddi gént di ñaan ba sa ñaan mat yiw bu bari la waaye nag dinañ ñëw tuuti ci point boobu muy point bu am solo ci wàllu gént ndax dañuy wax ni alxulmu xaqiqatun wal xaqiqatu yara fiha al insaan xaqaiqu damirihi gis nga gént réalité la comme niñ koy waxee bu ñu nee réalité la mooy kenn du tëdd gént programme li nga bëgg a gis muy benn kenn du bëgg it li nga li ngay bëgg a gis nga ne lii laa bëgg a gis ñaar buy ñëw ci yow doo choisir nu mu ñëwee ñett te lay ñëw ci yow ya allahu alam yàlla rek moo mën a xam li mu lay woon ci gént gi lu mu doon kon amu ci lenn loo xam ne lii nit ki dina ko fàggandikul boppam wala mu choisirul ko boppam wala mu tànnal ko boppam ne lii laa bëgg a gis kullun yaati min indillahi lépp ci mbiru yàlla la waaye am na surr bu yàlla def ci nit sër boobu mooy tax ni diggante dinañ ci ñëw léegi incha allah ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. waaw soxna si ñu ngi lay ziar. ñu euh, doon laajte ñaari gént yu ma géntoon fan yii passé. Mm-hmm. léegi dafa am benn waay bu may bëgganteel. Mm-hmm. léegi Euh, ñuy fay ci ndox. Mhm. ndox bi nag du géej du dex genre lag la. Mhm. mais dafa amoon ay jën yu sew ruuj jën yooyu soogaa juddu. Mhm. ci biir ndox mi ñu fay ba ba jàll ci beneen wàll bi. après deux jours encore ma géntaat ñu jël gaal. jéggiwaat ndox. waaw loolu laa doon laajte daal loolu la. bi ngay jël gaal yaa moom yéen a ànd. wa waa ñoo àndaat. Mhm. Ah. jërëjëf ala kulli xaal incha allah dinañ ci ñëw léegi. Eh, shukran eh, balaa ñu ñëw ci moom ñu ñëw ci ki nga xam ne kii moo woote woon léegi di wax ne dafa gént def wadifa bu pare def ñaan.